الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد مكي جلدي سونو بروم تبارك وتعالى دفا واخ اب يونتم في القران الكريم نكو وان لك لاجرا غير ممنون بروم بي دفا واخ اب يونتم نكو يوم دي am nga yool boo xam ne du dog yool boo xam ne du jeex waxaat fële ca suratul inshiqaq ne illa alladina amanu wa amilu salihati lahum ajrun gayru mamnun ñi nga xam ne gëm nañ yàlla nee na boole ko ak jëf ju baax ñooñu am nañ yool bu dul dog waxaat fële ca suratu tiin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون مهم لو مل نلم وخون نيغا خامن گم نين گم گو وير سين گم وير سل بوليكو جف جو باخ مي جف جو دپوك القران اك سنة نانا ньоญو ام نين يول بودول دوك كون جوليت بي لولو جانگ كو القران من نا واو يول بودول دوك موم nu muy demee ndax nit ki mën naa def jëf yool ba sax faw ci ak dundam yool ba di ñëw mu génn àdduna yool ba di continuer rekk di ko fa fekk ndax loolu lu mën a nekk la ñu ne ahu oh kay lu mën a nekk la loola mi ngi amee ci li ñu tudde as sadaqatul jaariya sarax soo xam ne da nga koo def fi sabilillah waaye mu nekk sarax soo xam ne daa continuer nekk fa maanaam sarax su gudd fan xam nga ne ki nit taxaw ci mbedd mi yorub këllam wala potam di yalwaan nga yëkkati juróomi dërëm dugal ko ca loola sarax la soo xam ne am na tuyaaba am na tuyaaba waaye sarax soo sa jeex na bindal nañ la tuyaabaam mu jeex benn yool bu nekk benn jëf bu baax bu nekk am na fukki tuyaaba bindal nañ la sa fukki tuyaaba mu jeex waaye nag ñi xarala dëgg-dëgg ci saraxe dëgg la sarax yooyu danañ ko bàyyi xel duñ ko neenal waaye dafa am yeneen sarax yu ëpp solo mooy sarax soo xam ne soo ko xasee def dafay nekk rek di ñëw day meññ diirub nit kaa ngi dund tuyaaba ji day ñëw su génnee àdduna ba wuy ji boroomam tuyaaba jaa ngay ñëw di ko fekk ci bàmmeelam soo su sarax day defe naa ne su mat a xam la su mat a bàyyi xel la ngir njariñ loo xam ne am na ko moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadiisu anas ibni malik radiallahu taala anhu nee na yonent bi dafa ne juróom-ñaari mbir mi ngi nii yoo xam ne seenub yool day fekki seen boroom ci ab xabroom gannaaw boo xamee ne génn àdduna su génnee àdduna ba dugg bàmmeel itam day mel ne rek loo xam ne day sottiku di ko fa fekk daa continuer rek du dagg yooyu yan la danaa ko tudd ci lu gàtt ci nim ñëwee ci xaddis bi bu noppee benn bu ne ñu jaaraat ci nee na ku jàngale xam-xam kooku benn la ñaareel ba nee na ku fekk ak dex nga xëcc ca ndox ma ba nit ña mën caa jariñu ñaara ngoog nee na ku gas ab teen nit ña di ca naan ak jur ga ñetta ngoog nee na ku jëmbat ak tàndarma wala bu la neexee nga ne ku jëmbat garab mooy ñeenteel ba mu ne ku tabax jàkka mooy juróomeel ba mu ne ku génn àdduna bàyyi fi ab kaamil boo xam ne nit ñaa ngi cay jàng mu ne koo xam ne génn na àdduna bàyyi fi dom ju baax joo xam ne da koy ñaanal juróom ñaar yooyu nit ka day génn àdduna ba noppi jëf ji ak tuyaaba ji di ko fekk fa mu nekk comme su fekkoon ne mi ngi fii ci àdduna di jaamu yàlla xadis boobu xadis bu wér la suñ delsee ci bi mu njëkkee muy ku jàngale xam-xam ki jang ab xam-xam ba yalla xamal ko dara mu di ca gor gor lu ko jeffe. ba nopi diko jangale wat diko ko jottali nit ña ñom itam ñu di ca jariñu kon jariñu goge ñi ci jariñu diko jangalat ñeneen ñu cay jariñu ba day fekk ci ka jangale won xam-xam ba lolu bok na ci tabax ay daara tabax daara yóbbu fa aw nit ñuy jàng li feek tabax boobee ma nga fa taxaw jàppal ne lu ñu fa jàng lu nekk tuyaaba ja mi ngi ñëw ci say balance mu ngi ci sa kees soo dee dund soo génnee àdduna yit ma nga lay fekk ci sa bàmmeel bokk na ci it ndongo yi nga xam ne dañoo toll ci jàng xam-xam te tumuraanke léeg-léeg sax njàng ma ak fay war leen ca nga jàppale leen ca loola ba seen mbirum jàng yomb loolee bokk na ci tuyaabay ki jàngale xam-xam ñooñu ëllëg luñ jëfe ci seen xam-xam boobu ci lu baax jàppal ne sa wàll nga ca bokk na ci sax ki nga xam ne mënta tabax mënta jàngale waaye am na ab terrain mu ne terrain bi jël naa ko jox naa ko daara ji lépp luñ fa jàng fii ci àdduna tuyaaba jàng koy wuy si bu génnee àdduna tuyaaba jàng koy topp ku fa jàngee dara it boo fa génnee foo jëm di jàngale ji loo yóbbaale yaa ngi yóbbaale wàllam mu di ko fekk si kon mu nekk lu yaatu mu teg ca ne ki nga xam ne dafa baawaanal ak dex dex kenn ku nekk xam na ko mën naa jariñ lool rawatina ci ñi nga xam ne dañuy bay ci béréb yi ñuy tudde walla dex mën naa ñëw xëccal leen ay tiwo yu jóge ca dex ga dugg ca seeni tool mën naa wut machine boo xam ne dañ koy taal muy xëcc ndox ma nit ña di ca jariñu di ca bay di ca lekk loolee tuyaaba la joo xam ne sunu borom tabaraka wa taala rek moo xam fu mu yem ndax su borom génnee àdduna yit loola da koy fekk si day dugg ca biir loola yit baykat ya nga xam ne dañoo lot ci am suuf suñu bayee yàlla jox la suuf su yaatu soo xam ne amaana mënoo koo bay nga jox leen ko ne leen bay leen ci fi sabilillah loo leen dimbal la loo xam ne yaa ngi dimbali ay doom aadama ci li ñu dundee loo xam ne lu ñu fa lekk mu lew tuyaaba jencee am ak seeni jaamu yàlla booy dund ak boo génnee àdduna sa wàll dalay fekk si kon loolu mooy man ajra naharan ba ca tegu mooy gas ab teen béréb yu bari tey ci àll bi bala ñoo naan dañuy dox ay kilomètres door a àgg ca ndox ma léeg-léeg buñ ca àggee ab charrette la yor wala ñu yor daaba joo xam ne lañ cay sëf lu tuuti la lañ cay mën a am buñ ko yóbboo bu ëllëgee mu jeexaat ñu ajaat ca awaat ca yoon wa ñooñee day ku leen mën a gasal ab teen boo xam ne dañuy nekk ca seenub dëkk di ca naan seenu jur di ca naan ñu cay jariñu ci lépp loo xam ne dañ koy jariñoo ci am ndox li fekk teen boobee ma nga fa tuyaaba ja foo nekk dala fay fekk si boo génnee àdduna tuyaaba ja ma nga lay fekk si fa nga tëdd am na ay teen yoo xam ne tey jii mille huit cent nangam lañ ko gasoon ba tey man xam naa ci benn boo xam ne mille huit cent quatre-vingt-cinq fa bind ne ca lañ ko gasoon ba suñ jooni tey jii ay nit a nga cay naan ak jur di ca naan te jëmm moo ko fa gasoon kon nit kooke seetal fa mu tëdd tey diggante mille neuf mille huit cent quatre-vingt-cinq ba léegi nga xam ne ëpp na téeméeri at bu yàgg tuyaabay doomu aadama yaag jur gay naan ak yépp di ko fekk fa mu tëdd loola defe naa ne ba muy dund lam fi jaamu yàlla mënu fee am lu toll ne loolee koy fekk si gannaaw boo xamee ne génn na àdduna kon xeeti sarax ak xeeti def fi sabilillaahi am na ci yoo xam ne ñi muus te xara la te xam mbir ma fa mu nekk dëgg dëgg dëgg yooyu lañuy jiital door caa teg leneen lu mën a doon bokk na ca loola boo mënta gasub teen it te mën a xëcc ab robinet yóbbul ko nit ñi ba mu àgg ca seeni kër ñu cee jariñu loola itam moo gasub teen rekk ñooyam mu teg ca ne ku jëmbat ak tàndarma yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak tàndarma la wax waaye gépp garab goo xam ne am na njariñ njariñul garab bari na lool garab am na njariñ ci nit ki mën nay dox ba naaj wi tàng mu taxaw noppalu ca kër ga mën naa dem ba ab taw ñëw mu taxaw seelu ca suufu garab ga garab am na njariñ sax ci li doom aadama yi di noyyi ci environnement bi waaye garab am na njariñ ci meññeet ma ciy jóge am na njariñ ci xob ya nga xam ne ak reen ya ci ya nga xam ne mënees na ko jëfandikoo di ko saafaroo ci yenn garab yi kon garab njariñ yi bari na lool yow mi jëmbat garab kon moo xam ak tàndarma la ni ko wali bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ndax fam doon waxe alayhi salaatu salam tandarma mo fa gëna bari motax mu tuddu tandarma waye gep garab go xamne ne am rek ñu man fa man ko jariño jëmbat ko li fe garab goge ma nga taxaw sa tuyaba di fekk na ne amna ay garab yo xamne ne danañ dund lu mat ñenti junni at fi ñuy waxe gi yeen am ay garab yo xamne ne ngi taxaw di dund yonent ya fa lañ leen fekkoon ba léegi ña di dund seenug dund kon nag jëmbat garab lu am njariñ la te nit ki sax mën naa wax ne man de lott naa ci gasub teen lott naa ci tabax daara lott naa ci sax am ay terrain yu muy joxee yooyu yépp waaye jëmbat garab moom kenn lottu ci jëmbat garab kenn lottu ci te kenn ku nekk xam na njariñ la na mu toll kon jéem a góorlu ba am genn garab goo xam ne donte genn la ci kaw suuf goo xam ne yaa ko fa samp muy màgg nga génn àdduna bàyyi ko fa muy màgg nit ña di ca jariñu wala picc ya sax di ca jariñu jàppal na tuyaaba jooje ma nga lay fekk fa nga fa nga tëdd mu teg ca tabax jàkka képp koo xam ne tabax na jàkka lépp lu ñu fa jaamu yàlla lépp lu ñu fa jàng ci xam-xam lu mu yàgg-yàgg li fekk jàkka jooje ma nga taxaw ginnaaw yaa ko tabaxoon donte sax defaraat nañ ko dolliwaat nañ ca donte màbb nañ ko sax yëkkatiwaat ko yow ma ko tabaxoon fa nga tëdd tuyaaba jooje dalay fekk fa nga tëdd ku joxe suuf ñu tabax ci jàkka it noona la ku mënta tabax jàkka waaye jël nga sa dara ne defal ma ko ci jàkka ji ñuy tabax ak nu mu mën a toll it xamal ne am nga cër bu toll noona boo xam ne sa wàll ca jàkka jooje dalay fekk fa nga nekk kon loola lu am solo la am na jàkka yu taxaw ci kaw suuf doy xam ne jàkka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ci boppam moo taxawoon ànd ak saxaaba yi tabax ko lu jiitu junni at ak ñeenti téeméer ba tey jàkka ja ma nga fa mu teg ca koo xam ne daf fee bàyyi ab kaamil nit ña di ca jariñu kaamilub alxuraan loolu mën naa doon kaamil boo xam ne moo ko bind ci loxoom mën naa nekk kaamil boo xam ne moo fay ñi móol ko mën naa doon kaamil boo xam ne da koo jënd ko teg ko ci jàkka ji nit ña di ca jàng mën naa doon sax kaamil boo xam ne da koo jënd jox ko lenn ci ndongay xam-xam ñi yor ko di ko jàngi ca daara ja ku jàng ba noppi jox keneen yool ba di ko fekki mën naa dem ba dugg ci sax téerey lislaam yu am njariñ yi nga xam ne ndong yi hamham xam-xam man nañ ko jariño nga defar la nga man mo xam man na dem ba nek bibliothèque wala mu nek lim ci ay téré nga def ko fi sabilillah tek ko fi barab bo xam ne bëgg jang xam-xam man nañ ko wa fekk mo xam ci biir jakka jala wala dang ko jagleel place lepp luñ fa jang ci xam-xam bu ñuy jariño diko jaamu yalla sa wal dalay fekk fa nga nekkon mu mujjé nak dom ju bax doom ju baax yoo xam ne dafay jéggalul waajuram loolu nag ab yara koy indi doom joo xam ne da koo yar jàngal ko teg ko ci <coughs> siratul mustaqim kooku waajuram dana génn àdduna du ko fàtte fu mu toll bu nekk da koy ñaanal bu ne waajuram sax yemul ci baayam bi ko jur waaye dem na ba ca maamam ak ay maamam fa mu nekk mu di leen ñaanal ñaan googee di leen fekk fa ñu nekk moom moom yi kat kam yar ëllëg mu di ko ñaanal di ñaanalaale maamam yooyee loolu daanaka day continuer amul fu mu yem day continuer amul fu mu yem su fekkee dégg nañ lii nu wax delsiwaat ci li sunu borom tabaraka wa taala wax ne illa alladina amanu wa amilu salihat falahum ajrun ghayru mamnun kon danan xam mbir mi ne mbir mi du mbir mu ndaw mbir mu reey la suñ jàppoon ne yow jullit bi def nga benn jëf ci jëf yi ñu tudd jàppal ne am na benn gone goo xam ne yow yaa ko jàngal alquran mu mokkal alquran gone googee jóge fa màgg dem jàngal keneen alquran mën naa jël sax jàngale alxuraan foofu mu doon mécceem di mokkalal ay nit ñuy dem mu toog di liggéeye loola giirug dundam ay nit di mokkale ci moom di dem di jàngale jiwaat loolee doon mbooloo moo xam ne dañuy tasaaroo ci kaw suuf di jàngale téere bi yàlla bi ñu nekk benn silsila boo xam ne kenn xamut fu mu yem ci àdduna su fekkee ne imaginer wu nga ne ka nga jàngaloon ñooñu mu jàngal ñépp kuñ mas a jàngal tuyaaba ja muy am jël nañ sa wàll jox la kon nga xam ne mbir mi mbir mu rëy la jàppal ne woo nga nit ci tawxiid woo nga nit ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla gindi ko mu génn ci bokkaale génn ci biddaa jàppal ne kooka bu jógee di woo ñeneen ñooña di woo ñeneen ba ca fu silsila ba mën a àgg ci àdduna ñooñee gindiku ci sababu sa woote boobee képp ku ci jëf-jëf ju baax sa tuyaaba dalay fekk si fa nga nekk te du wàññi dara nag ci seen tuyaaba ñoom ñooñi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadiisu abi hurayra daf ne من دعا الى هدى كواتي جميتي اغنجب كان له من الاجر مثل اجور من تبعه نانا كواتي جميتي اغنجب امنا يول بطلنا يولي نيكوي توب نيكوي سنيب لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا نانا لولي مي ام يول بطلنا سين يول يويه taxul mu wàññi seenub yool ñoom déedéet dañuy am lu toll ne lañu am moom it mu am lu toll ne lañu am ndax moo leen ca dugal waaye mu teg ca sofaan ba mu ne ku woote ci ak ndëngte ku woote ci ak réer nee dana am bàkkaar bu toll ne bàkkaaru képp ku ko topp bàkkaaru képp ku ko topp mu ne waaye loola du wàññi dara nag ci seen bàkkaar yi ñoom itam kenn ku ne bàkkaar ba nga def danañ la ko fay ba noppi moom meleen ca dugal ñi fay ko bàkkaar bu toll ne seeni bàkkaar xadis boobu muslim génne na ko muy xadis bu raglu nag xadis boo xam ne njëlbeen gi day soññee ci góor góorgóorlu woote jëme ci lu baax ndax sa tuyaaba mën a continuer bu baax a baax ba faw waaye dafay tiitloo nit ki ci kaw mu woo nit ki dugal ko ci loo xam ne sudul noona la moo xam biddaa la moo xam bokkaale la moo xam xeetu dëng wum ma a doon ka nga ca dugal lépp lu def ci lu bon dana am tuyaabaam dana am bakkaaram ba mat sëkk waaye danañ la tibbal bakkaar bu toll ne bosam sottil la ko yow itam ci say balance ëllëg nga fekk bak bakkaar yu dul jeex yoo xam ne danga naan lii man yëguma fu ma ko defee ñi ne la ña nga dugaloon ca lu bon la ñi koy def kat ca lañ tibb sa wàll jox leen safaan ba kële ne ah man yi tuyaabu yu bari man fu ma ko jële ñu ne ñii de ña ngi dugaloon ci lu baax ñuy jëf lu baax ca lañ tibb jox la sa wàll moo tax nga am lu toll nii tey kon loolu lu mat a bàyyi xel la waaye mbokk jullit bi su fekkee ne seetlu nga lii ci ngay xame dëgg dëgg nag martaba bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la am yonent bi alayhi salaatu wasalaam li tax yàlla ne ko wa inna laka la ajran gayra mamnuun foofu borom bi tabaraka wa taala daf fee boole mboolem li ñu tudde ay mu akkidaat inna ci boppam dafay fedd li laam gim dugalaat ca foofa ne ko la ajran loolu day fedd liwaat lay wax ja mooy yow mii day di sama yonent bii محمد صلى الله عليه وآله وسلم أم أي تيابة لوير تي يقين يو خم ندودوك موك دي كنت نرق دي صوتي لولا لطخ مودي خولل نيون انتبه صلى الله عليه وآله وسلم دين الإسلام تي موم لواج مدون جم جي جك دون أب جلت تي دين الإسلام تامبلي دي واتي غامل كدوك تي الإسلام موم غويسي kon képp koo xam ne jaamu nga yàlla ci ab jullit ak foo mën a nekk ba kero àdduna di tukki am nga sab yool ba mu toll na muy na mu war a toll waaye ñi tibb lu toll noonu def ko ci keesug yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loola kenn xamul nu mu toll yërmaande yi sunu borom tabaraka wa taala akub mi yemul foofa waaye saxaabaam yi kenn ku ci nekk dugal nga ay kàngam ci lislaam xoola abou bakar siddiq radiallahu taala anhu moo dugal ousmaan ibnu affan ci lislaam ousmaan nekk na ci lislaam di def lu baax di def lu baax ba yonent bi salallahu alayhi wa sallam ne maa darra ousmaana maa faala baada al yowm mu ne ousmaan de lu mënoon di defati it mënatu koo lor lu mënatoon a def fii ci àdduna loola mënatu koo lor maanaam mënatu koo yàqal àllaaxiraam waaw ki ko dugal ci lislaam nag kon kooku day daal di am tuyaaba ju toll na jamu am nga xool saxaaba yooyu nga xam ne seen dund gépp dañ ko jeexal ci tasaare lislaam ak jottali ko ba lislaam àgg fi mu àgg tey ba ci lu yàggul ci at mii ñu nekk am na benn étude boo xam ne tasaare nañ ko ci site CNN bi nga xam ne américains yi ñoo ko moom ñu ne lislaam tey mooy diine ji nekk numéro un ci àdduna maanaam moo gën a bari aw nit amul jenn diine joo xam ne li doon ay jullit tey am nga lu toll noona kon mooy numéro un ndax ñi ngi bëgg a mat ñetti milliards kon ab lim la bu rëy waaw ñetti milliards yooyu di wax ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammad di julli di woor la am ci tuyaaba ñi di ci jël di ci defal saxaaba yi ca seeni kees loolu lépp ñu boole ko di jëlaat di defal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay keesam yooyu tuyaaba sunu borom tabaraka wa taala rek moo xam na mu toll la nga ciy jële mooy xam maqaamam yonente bi alayhi salaatu salaam xam maqaama saxaaba yi fa ñu toll waaye mën nga cee xamaale maqaamam sun mag ñi nga xam ne ñoo nu jàngal ñoom itam ay daara lañ yor nuy jàngee ci ñoom alquran continuer di jàng ñeneen di la jàngalaat ñeneen di la jàngal ëllëg lépp loo xam ne xam nga ko ci xam-xam wala nga jëfe ko ci jëf dañuy tibb ca loole nga am fay la ba mu mat sëkk waaye ñoom itam ñu fay leen lu tol noona kon daal dañuy yëg ne béréb la nekk boo xam ne bérébu liggéeyukaay la boo xam ne faggukaayu tuyaaba la waaye am na bunti faggu tuyaaba yoo xam ne mooy yi gën a ñor mooy yi ëpp njariñ ndax du jeex du jeex ba faw kon daal la ñuy daaneele mooy xam ne sunu borom tabaraka wa taala lin ko yoreel ci ak cant mënuñu koo matal ndax lim ñu ubbil ci bunt yiw dafa bari te dafa yaatu